bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasala allahu wasallama ala sayidina wa habibina wa shafiina wa maulana muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ixwatal iman saadat al ulama ashaab al maali samaahatu shuyuux asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki tëdd yi nuy déglu ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaar di leen balwaaq di leen balaaq di ñaan yàlla yal nañu yàlla boole jégal su dem seen rajo 98.5 kaddu gi bàyyi ko fii ci Ndakaaru dellu siwaat nag ak yéen seen émission bi ñu tuddee jaar jaar yonent yi alayhimu salaatu wasalaam da ngeen ci ànd ak seen mbokk alxaaji oustaz Alioune Mbaye ginnaaw loolu nag ñoo ngi doole ñaan jàmm ci réew mi ak réew yu ko wër doole ñaan suñu borom subhaanahu wa taala yal na doole faj aajo yi teggi tiis yi saafara jàngoro yi te jéggale bàkkaar yi yal na yàlla gën a xiir ci boppam aar ñu làqu ñu fa yàq yeggul yàlla bu nu yàqu yàlla bu ñu yàqule lu nu am yàlla lu nu ñàkkit yàlla noonu yàlla yal na yàlla gën a téyel boppam yal na yàlla gën a sàmmal boppam yal na yàlla gën a aaral boppam bi jaay si li wujud wa alami suhud ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baal ñëpp di balu ñëpp àq ginnaaw lool nag ajjuma ji nu génn bi nuy tàqalikoog yéen ñoo ngi doon ànd ak yéen rek <clears throat> ak euh, yéen ci sunu téere maam ji ñuy wax muwaahibu naafi te mawlaana cheikhul xadim xaadimu rasul Cheikh Ahmad Bamba bind ko jëmale ko ci sangam bi jëmale ko ci njaati géem li digganteem ak boromam yoon wi mu dog jëm ci borom bi te fas yéene ko jaare ci ndawal sunu borom bi buntu borom bi subhaanahu taala wax ju sell jikk sëñ tubaa di jagleel di li di xëy ci moom di gont ci moom di waxi mbaaxam di waxi jagleem di wax ay xar baaxam di wax yërmande ak jëmmiñ eh, njub gi yàlla eh, dëxëñ ci moom sëñ Tuubaa di ko feeñal ba pare di rëgët jaam ñi nag leen bëgguloo rasulullahi sallallahu alayhi wa di leen bëggloo alquran di leen bëggloo suñu borom subhanahu wa taala loo tax téere bii nekk téere bu am njëriñ mooy muy muwaahibu naafiya nga xamante ni diggante ak borom bi subhanahu wa taala digganteem ak yonente bi sallallahu alayhi doxalewu fi keneen doxewu fi leneen xanaa bu ñàkkee am ñu mu ci ñàkk dugal ba ñàkk leen ci dugal de mooy sahabatul kiram xulafaawul arba ak ñi nga xamante ne ñooy njëlbeenoo lislaam seen muñ ga ak seen njàmbaar ga loolu de sëñ Tuubaa bool na lu waaye bu passé lii lenn génn ci yàlla suñu borom subhaanahu wa lenn génn ci ndawam li jaamam bi Muhammad ibn Abdullahi rasulullahi sallallahu taala wa sallam moo tax sëñ Tuubaa ñëw bi mu ñëw ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne xaytul afaada am céebolo mu am njariñ manistafaada ci ku sàkkoo jariñu laysun abaada gaynde la guy fàdde moom rasulillah aydan daha yi noon yey jommalaate nee na rasulullah sallallahu alayhi wasallam gaynde la guy guy fàgge ca yooyu yooyu noonu lahoo manaqib ñeel na ko ay ngëneel lahoo ajaayib ñeel na ko ay kéemtaan lahoo xaraayib ñeel na ko yeneen yu fàddu yu bët tegewul nopp déggu ko bilantihaay yoo xam ne ni kenn xamul fu mu yem zabyun yu kallim moom la tilli ga doon waxal babbun yu sallim moom la mbëtt ma doon waxal tayrun yu azim moom la picc ya doon mbaaral kasi kasi zahabin comme niir ya daan mbaaral yonent bi sallallahu alayhi wasallam niir yi fi nga nekk ci asamaan yi niñ daan niir di ko mbaaral ba ker geeg jant beeg naaj wi du ko du ko sarxun tasiirun mooy dox ba fa mu jëm te du loru xaysun yafuuru daana baaw naan fekk maral wu mar ba tar ñu ñëw wax kër Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu baaw naan yàlla may kam ndox ba dëkk bépp di baawaan ndox mu neex ak atmosphère bu neex mu ni biirun tafuuru teen itam daawoon nañu dëy dëy mooy ŋàcc ba amuñu sax lu mën lu mën a bëggum picc ñu wax ko ko mu ñëw tëf li sang bi ñu daal di koy yeewaat sang euh, bi euh, di ko jërëjëf jëf an laa ilaha illa allah wa annaka rasulullahi sallallahu alayhi wa sama ba daal di jommi ni man de waxuma la sax gaarante beeg sama man li ma ko naroon rey waaye yow di ci yow laa déggee till gooy wax di waxanteeg mala yi yow ci yow laa ko déggee te si till gi seede yàlla la yónni kon ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullahi sallallahu wa sallam moo tax sëñ Tuubaa ni zabyun till ga yukallim moom la doon waxanteel mu ne yu yusallim mbëtt ma itam nuyu na ko biit beneen affaire la benn sàmm mooy jàpp mbëdd yeew ko rend ko ci bëccëg lonk ko ci bantam di dox noonu bu wàccee ngoon lakk ko fas yéene ko xéwloo di ko fekk yonent bi sallallahu alayhi nit ñi wër ko mu naan yàlla ma yónni ana rasulullahi wa xaatimi nabiina waa ji xuus ci géew bi ni ko yow li ngay wax solal nga nu ndax man fu ne laa lay dégg nga naan yàllaa ma yónni ku yàlla yónni kay day def kéemtaan mu ni ko fekkee yàlla la yónni mbëtt mi ci suba laa ko rayoon waaye dekkalal mbëtt mi sang bi jël ñokket ju teg loxoom yu tedd yooyu ci kaw mbëtt mi mbëtt mi ni fot fot fot fot daal di dekkaliku yónni bi saa su nekk ayyuha dabb man ana yow mbëtt mi man maay kan mu ne ko anta rasulullahi rasul rabbil alamin ashhadu laa ilaha illallah wa annaka rasulullah mu ne ko yow yaay ndawal yàlla li yaay ndawal yàlla mi nga mooy mooy rabbil alamin moo moom mbindee fi man de maa ngi seede te nangu ne yàlla la yónni waaru loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la mbëtt ma doon nuyu mu ne tayron yu azim moom lépp ci doon mbaaral bu mu sànni di dox ci naaju tàng bi giir tiilu picc yu bari dañuy ñëw tiim ko noonu ngir di ko fegal dangaayu jant bi ak ngir bañ mu sonn mbaa aw ñaq di ko sonal loolu ci kéemtaam la ci kéemtaanam la moo tax ñu déparé ci commencement bi mu ni xaysun afaada am ci la bu am njëriñ manistafaada ci ki nga xam ne moo sàkkoo mu ne laysun afaada gaynde la guy fàdde aydan daha yi ca noon yeey jommalaate lahoo manaqib ñeel na ko ay kéemtaan lahoo ajaayib ñeel na ko ñeel na ko ajaayib ko ay ngëneel lahoo ajaayib ñeel na ko ay kéemtaan lahoo xaraayib ñeel na ko yeneen ak yeneen yu fàddu yu bët tegewul nopp dégg ko bi leen haay ci yoo xamante ne kenn xamul fu mu yem ñif sab yun bokk na ca euh, kéwél gi kàllim doon na ko waxal dabbun mbëtt ma wax naa ak moom tayrun picc ya mbaara lañ ko ngir bañ tàngaay jant bi dem ko ka zahabi comme niir yi nga xamante ne ñoo ko daan mbaaral sarxun tasiiru muy dox ba àgg fa mu jëm nee na xëy suñu yafuuru daana baaw naan wax naa leen ko léegi nit ñi ñëw nañ ci moom ni ko daa dañu bëggoon mu taw ndax tàngaay weeg maral yu métti na te bekkoor bi métti na jur gaa ngi deex sang bi alayhi salaatu baaw naan ànd ak ñoom yàlla tawal leen ndoxum jàmm ba ñëpp xuus ndox ñax mi sëq jur gi lekk nit ñi root ba atmosphère bi melaat nee na garab yëpp sëq loolu yàlla jegale na ko nee na biirun tafuuru sëñ tubaa nee na teen yi daaw nañu dey ba kenn du ci am loo naan mu ñëw ci mbaaxam ñu wax ko ko mu ñëw tëfli ci teen rek tëflit waawa yàlla barkeel ko mu mujj teen ba bënn bay fees ba ca kimij ga nga xam ne boo ciy rooti du jar sa nga wut buum di di ca root bilaa rachat yi te te dootul jar nga wut ak ab goj mu ne gis un yahinnu ëkkug tàndarma ga xanaa fàtte woo ko sëñ Tuubaa nee na ëkkug tàndarma ga yonent bi sallallahu alayhi da daan toog daan ca wéeru booba defaral guñ ko min baram boobu mu cay wéeru buy julli ca wéeru di ko teg ci karam mu nekk saatiram kere bi min baram bi pare ñuy toxal min bar bi bàyyi fa ëkkug tàndarma nee na ëkkug tàndarma ga dafa dafa binni la hoo ya innu ñeel na ko ak binn ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam di jooy ba ñëpp defeen ak nit la ndax lan bi ko yonent bi sallallahu alayhi waxee ni ko looy lu lara lu waral lii mu ne ko wéttal gi nga doon wéttul ak wéeru gi nga doon wéeru ci sama kaw moom laa doon bànneexu tey nga bëgg a toxu bàyyi ma fi am na sax ñu bari ñu wax ni yat woowu imaam di yor ci minbar di ci sukkandiku la rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ak tàndarma googa la am na ñu waxee noonu waaye am na ñu ñàkkit am na ñu wax leneen waaye xam-xam moo mel noonu moo tax tilli ga dimbalante naa yonent bi sallallahu alayhi wasallam keroog ba muy sàmm yonent bi sallallahu jël na ay gàtt di ko sàmm ñu di ko fay bi mu ñëwee ba jug benn xuru yaatu ay ay ay till a ngi ci di rëbb ay béy waaye kilifa ak till yi ñoo moo ñëw ba yonent bi sallallahu alayhi ni ko bàyyil jur gi ngay sàmm ñu dugg ci xur wi lekk ba suur dinaa wax sama njaboot kenn du ci laal benn bëy mbaa wenn xar ndax tere la la ko daan ni ko ashhadu laa ilaaha illallah wa ashhadu annaka rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee na que bi raa yi sàmm ga nga xamante ne achaay euh, sàmm ba dimbali woon na ko ca càmm ga mu doon sàmm ca biir xurwa moo tax mu ne xat haasa faxra kooka làq ndam ya xat haasa faxra ndam ya min xiini asra keroog ba muy reñaan bil jismi jahran ànd ak jëmm jaag léppam bi laftiraa yi ci lul benn sos ak rem bi rabbi kaawteef ci sama borom asra bi hibbin ba mu rañaane ak soppeem ba laylan li qurbin ci guddi li qurbin ba jege ak boromam subhaanahu taala maal baraa yi ànd kaa ko laab set wicc laqad baata yasri fanaane naa dox min baadi tuxrin ginnaaw ba mu laabee buraax ngalaab ko war ca kawam mu diima bishrin mu saxoo bégle fi anbiyaa yi ci yonent yépp sural amina rañaane na moom soppeem boobu moom rañaane ak yàlla rañaane ci guddi gi maal amini ànd ak jibril mi yàlla wóolu fawqal amini ca kaw buraax mi ñu wóolu lil asfiyaa yi ci barabab barab yu sunu borom yu sell ya muhyit dalaala far na ak réer abdal jalaala feeñal na ak màgg abdal jamaala feeñal na ab taar li atqiyaa yi ci way ragal yàlla yee ñépp sëriñ nee na rasulullaahi sallallaahu alayhi wa mii may wax moom moo làq ndam yi ndam yonent musa am mbaa ku yàlla jagleel ku nekk ndam loo mën a am yaa taasoo ci barkeb seyduna muhammad sallallaahu alayhi wa moo tax mu ne xat xaasa faxran kooku làq na ndam yi ba yàlla àtt ne rañaane ko guddi gi mu yóbbu ko ci asamaane juróom-ñaar nga xamante ne nii ci guddi gi la dem ci guddi gi la ñëw mu war ci kaw mu ànd ak ki yàlla wóolu muy jibril ruuxal amiin muy jibril ànd ci ak e, buraax ci ay histoire yi gudd a gudd yoo ni du fi xaj moo la sëñ bi nii Euh, sural amina ki yàlla wóolu mu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla rañaane na ko yóbbu ko fu kenn musta dem mbindeef ci kaw suuf waaye mu ànd ceeg al amina jibril jiite ko mu ànd ceeg buraax buraax mi nga xamante ne moom la yàlla wóolu jëm ci barab yi suñu borom yi sell yëpp yëpp yëpp yëpp waaye xam ne kon kii moo far ak réer moom kooku moo feeñal ak màgg ndax màgg gu nit mën a màgg kat demagoo asamaane juróom-ñaar ba romb ko jëm feneen kon moom mi nga xam ne moo fa romb jëm feneen kookoo màgg kookoo man ñëpp mu ni abdal jamaa la kooku moo feeñal ab taar taar ci moom la yem ci mboolem ñi ragal yàlla ñëpp nag ndax taar a ngi tàmbalee ci wéy ci ndigal ba kenn dootu la futti kenn dootu la toroxal kenn dootu la weer kooku looloo def taar sëñ Tuubaa nee na xat xaddamoohu moo tax ñu jiital nañu ko asamaanu benneel asamaanu ñaareel asamaanu ñetteel asamaanu ñeenteel asamaanu juróom juróom benn juróom ñaar ba mu paase ko dem ci as dem ba mu muntaha romb foofu yëpp dem ba ci ko wax suñu borom subhaanahu wa taala suñu borom teral ko wan ko ajjana ak ya fa nekk ak ya mu ko fay xaare wanka safara ak dumay ak mbugal yi nga xamante ku ko weddi su ko neexee foofu la lay dugal ak yeneen i kéemtaan moo tax alxuraan di wax subhaana lazi bi abdihi laylan min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa lazi barak na xawlahu li nuriyahu min ayatina innahu samiun basir moo da sëñ tubaa ni iswajahoohu ba ñuy jàkkaarloo ak moom waxtaramuuhu ormaal nañu ko zawi naqaa yi ñu fóotuwaat ba set wicc ñoom ñëpp mooy yonente ye yonente bi salaam ba mu demee ci asamaan yooyu ban asamaan bu mu ubbi fekk fa ku ko teeru ñu rëkkal ko junj ngi asamaan mu jiite leen ñaari julli nabi sant leen gërëm leen ne su beneen appaloo langaan gis nga moo tax mag ñi seen lépp daa nuroo xam nga waxin wi ak tëggin wi ak xeetu woote wi moo moo moo moom lañ naan moom la ñuy laam waaye gis nga booy jàng mbay doon la ma la doon wax mooy lii sëñ baax ci mu mu ay bu naafiram bii moo tax bari nag kuy coow te xamul li xew waaye ku xamoon li xew ku nekk da ngay fexe ba fu nekk rek nga coppati fa mooy gën waaw ndax ñun ñii cadeau la ñu ñoo xamante ne yàlla nu ko jox cadeau yi nu yàlla jox nag njàmbaara ngóor taxuñ jox na ko waaye ku yiw rek te civilisé man ci ay xéewlu loolu rek kay lem solo <laughs> moo tax nee na sëñ Tuubaa na zawi naqaay ñoom ñëpp fuutuwaat nañu ba set wicc wa zaada fiihim mu doon seenub sang wa baana anhum ba loola wéree wa siina anhum mu gaarante leen ñoom ñëpp baadar tifaa yi ginnaaw gi mu yéeg jéegaat di dem di dem ba fokk sunu borom soo sooge sunu borom ni ko ndax yaa ngi may gis mu ni ko subhaanaka bët mënu laa gis laa tudrikul absaar wa huwa yudrik bët mënu laa gis moom kese mu ni ko bàkk ma waxal maa bari doole mu ni ko subhaanaka xel mënu laa tagg làmmiñ mënu laa bàkk ndax yooyu yëpp lot nañ ci wax sa daraja ak sa doole mu daal di roof te xelam ni ko nuyool mu ne ko nan laa lay nuyoo ndax nuyoo bi ma am mooy ñaan jàmm te yow yaay jàmm yàlla roof ca xel ma ataxiyaatu lillaahi zakiyaatu lillaahi tayibaatu salawaatu lillaahi sunu war ni ko asalaamu aleyka wa rahmatullahi wa mu ne ko lii laa lay jox comme sérité sooy ñibbi julli gi ngay yóbbu moom ngeen di moom ngeen di génn ci julli gi di ngeen di ngeen tam tiyaabu ju réy te du farata gisal loolu kon sang bi alayhi salaatu wasalaam nii la yàlla euh, nii la ko yàlla garanteel moo tax sëñ Tuubaa ni moom moo raw ñëpp moo tiim ñëpp li ko yàlla defal defalu ko kenn moo tax mu ne wax siina anhum mu garanteel ñoom ñëpp baadarte fi ginnaaw gu mu yëgaat sëñ Bàmba nee na xat aaba laylan mu dellu siwaat ci digg guddi te bët setul xat sabbanay laa mu wesaare xéewal ya xat faaqa say laa ah loolee moo indi euh, moo kawee yoolum géej lii li mu indi kawe na yoolum géej xat faaqa say yoo yoolum géej maanaam géej buy joxe dana joxe ba mu ba joxe lu ëpp moo tax géej fa mu yem rek fa ko yàlla fa li mu wax ni moo kawe géej géej fa yàlla yemal fa la yem waaye fees géej dell fees jéeri fees asamaan kooku mooy yonent bi yonent yàlla Muhammad kooko li mu ko indi indil muy diine jéggi na frontière moom la waa kaw di dunde moom la waa suuf di dunde moom la waa jéere jéej ñëpp di dunde moo tax mu ne xat faaxa say la te mooy diine yi lislaam ji leneen lu waay jàpp muy diine yaa ko diine woo waaye yàlla nee na reconnaître ma loolu inna diina inda al islaami inda allaahi al islaam inna diina inda allaahi al islaam wa man yabtagi xayra islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l axiri min al xaasirin la loolee yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam jëlee ca kaw fa ko yàlla yónni woon mooy julli julli juróom ak tegu ci njub ak ay législation kooku moo kawee yorum géej moo tax ñu mën fay nekk loolu fan la ko maam mu ne min sil baqaa yi ñu ngi ko amee ci aji des ji te mooy borom bi subhaanahu wa taala waa maam lu ca tegu mu ne xat baa bi mayri indil nañu ab euh, ab xont bu doy xat baa bi mayrin indi lañu ab xont xont bi kat mooy julli juróom ndax xam ngeen ne julli inna salaata tanhaa anil fahshaa'i wal munkar jullit waxuma julli kese nag waaye jullit boo xamante ne jullit la te làmbowoo melokaani jullit yaa gën kurul yow yaa gën a stable kurul yow ndax li tax nit ñi xeex ci àdduna bi di taali fetal ak di rab bi ay kënu di tuur deret ju dul jeex mooy ñàkk a xam li leen yàlla defal di yuutu lii iblis di baaxle defe ne dara la waaye moo tax mu ni xat jaa bi mayrin ko indi nañu ab xont bu doy li ahli xayrin jëmale ko ci borom yiw ya waa baabi dayrin ña bañ nag ñoom ñëpp ñu nga ca xat-xat xanaa mu ni ñàkk dund lislaam mooy xat-xat dëgg dëgg dëgg boo gisee tubaab yi xaru yomb leen def ñaawteef yomb leen jël fetal dugg ci kaar tiire ñëpp roose ñëpp te defuñu la dara ñàkk diina koy indi wala nga nekk ci kër jàpp sa yaayit dóor ko bal mbaa ñu jox sa doom ju ndaw ju xamul fu muy tàmbalee droit joo xam ne ñemewu ko ne sa bët bi suuf ngi ci ba boo ko laalee ay ponk la ñuy fekk ci kër gi yenu la yóbbu nii la da ngaa def violation euh, droit de l'enfant nee loo ñàkk dundu diine moo ko waral moo tax ñooñu ñëpp ñu ngi ci ay xat-xat mu ngoog alu shaqaa ñoo ñaay boroom te di ya de haasal kamaala kookoo làq mat ga faaq rijaala kookaa tiim góor ña jaasal majaala kooku jéggi na mas ga bil ictimaa yi ba ñépp euh, euh, ba jiite tànneef yi bokk waaw bi ictimaa yi kookoo jiite tànneef ya sëñ Tuubaa dani alu saqaa yi way texee di yeeñ mooy ñi gedd yonent bi sallallahu alayhi wan ko ginnaaw texee di mënta paase foofu ak naral alku àdduna ak alaaxira mënta paase foofu waaye kii ma lay wax nii xaasa moo làqal kamaala mat ga lépp lu nekkul ci moom matoo lu dul diine ci moom doo diine lu dul àtte ci moom àttewul ku bëgg a àtte te àttewoo ci moom juboo ña ngay àtte jubuñu lépp loo bëgg a tëral ci wàllu économie génn sart bi mu tëral juboo te ña ngay àndal jubuñu ak yoon ak yeneen ak yeneen moo tax sëñ Tuubaa ne faaqa rijaala kooku moo tiim góor ñi mu ne jaasal kamaala kooku jéggi na mas ga biixtimaa ba jiite tànneef yépp moo tax nit ñi di ko di ko di ko sustimer ak di ko cof moo tax mu ne naa la jalaalaa am nga màgg nga naa la jamaalaa am nga taar yow yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi moom la Sëriñ Bamba di wax ni naa la jalaala am nga màgg naa la jamaala am nga taar mi man taala tukkee ci aji kawe rabbun samaa kay boroom asamaan yi akrim bi aali kaaw téef tedd nga ñeel na yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ki tedd xaami iyaal yi yàlla na nga aar njaboot gi raayi rijaala yàlla na yàlla sàmm góor góor ñi xis xisnu nisaa yi yal na yàlla ñoŋal jigéen ñi niamal azimu ku màgg kooku amul moroom niamal karimu ku tedd kooku amul moroom niamal muqiimu ku sax kooku amul moroom lir ruasaa yi koo koy tànn njiit yi njiit loo fi dégg ku ko mën a tànn ku nekk moo moom ñooy seet la leen boole rek muy àddina ñu tey jiitante jëmal bu kenn xawul waaye njiit mooy ki yonent Yàlla Muhammad tànn mooy ki sunu borom subhaanahu wa taala kooku mooy ruasaa yi mooy njiitu njiit yi kaafil xuruuri yal na nu yàlla fegal ak ak ak te mooy iblis iblis day wore lu mu lay neexale lu nekk mu ngi ko jëlee ci sa moroom koo xam ne nag lu mu la jox ci sa moroom la ko jëlee lu mu la jox ba ba nga tëkk foofu yi mu lay baaxalal yépp dara baaxu ci ndax yàgg-yàgg léeg ràpp ak xar sëñ Abdoulaye daana ko wax ràpp ak xar loo fi seen muy yi ba la gën a rafet ci xar lay mujj kër goo fi gis lu mu rafet rafet rafet ci ràpp lay mujj kon nag ràpp ak xar dong lañ leen fi la iblis yor di ko naxe nit ñi moo tax mu ni kaafil xaruuri yal na nu yàlla fegal ak woru mooy iblis maahil xaruuri yal nañu yàlla fegal woru aji woraje mooy iblis woru mooy sàq mi te yooyoo dara wane ne yow mii dara nga te doo dara wane na yow mii am nga dara amuloo dara moom la sëñ bi wax ni yal yàlla musal ci iblis mii wore waaye musal nu itam ci sàqamite yow dara moo mootil buruura yal na yàlla may ñu tuub walla boog ak topp yàlla gu sax yal na ko yàlla may bi saa yi ci lu dul yeexantal baa ni duyóoraa yal na yàlla tabax kër ya ma al xuyóoraa te boole ci xéewal ya baaxi suruuraa te ñay sàkkoo mbégte yal na yàlla may leen ak mbégte ñiy sàkkoo mbégte te mooy béggee rasulullahi sallallahu alayhi wasallam béggee mbaax tey bég ca saxaaba ya ñooñu di ko sàkku sëñ Bàmba nee yal na leen yàlla may ak mbég lil jula saa yi te mooy ñi doon toogandoog jotaayee ak yonent bi sallallahu alayhi am na ñoo xam ne ni bi demee fa la ca yonent bi sallallahu dañoo toog ca moom bu ñu xëyee am na mbaar mu ñu tuddoon ahlu suufa fañ doog alxuraan ji wàcc ñu mokkal ko xadis bu wàcc ñu mokkal ko jéemuñoo samp kër ñoo def dara lu may rek fexe samp institution alxuraan lislaam bii di xalaat ñi ñëwagul ndax diine jii ñu yor bu doon dañuy xalaati doom wala ñuy xalaat tabax ak i terrasse kon du la ko jaral ñun fi nu nekk nii tey boo gisee fi eh, daanaka xam nanu li nu lislaam defal waaye xamaguñu lan lan war a defal islaam ndax saxaaba yi bu fekkoonte ne bu yonent bi saa sam wootee ñun ah kii de ci boppam la nekk bu wootee ak xare ñun ah rey loolu de xaru la kon lislaam du samp te mbon moo fay continuer waaye yàlla tàggat ay jaamam def leen ay nit ñu dégg yonent bi salaa salaam dégg message am ànd ak moom di woote ànd ak moom di ko dimbali bu wootee xeex ñu ñëw bu wootee joxe ñu joxe bàyyi seen kër ub seen njaboot dénk ko yàlla ànd ak yonent bi salaa salaam jox ko ak dundam bu leen xeex loo ñu xeex bu leen bu leen maslaha loo ñu maslaha bu leen jàng loo ñu jàng bu leen julli loo ñu nag yàllaa def mbaax googu ci ñoom ndax dañoo suuraale woon niti aaxiru zaman yii di ñëw mag ñi nu fi amit noonu la boo gisee Sëñ Tuubaa li mu daj ci géej gi daj ko ci wooteem bi ak samp yoonam wi loolu rek la bëgg nit ñi ëllëg du ñu fi nekk di xëccoo mbiddum àddina mii liggéey ak jaamu yàlla liggéeyal jaamu yàlla bu yàlla gërëm mën nga ca amay ngërëm jaamu yàlla ci ngay mucc fii mucc fa ñu jëm ndax fa ñu jëm kat laisser passer la fay may laisser passer ci bàmmeel moo nga nga dib jaam illaa man atalaa bi qalbin salim moo tax mag ñi ñu fi mun ñépp ci loolu ñu daan xëy di ci gon di xool ñu dul ñëw bu doon sëñ Tuubaa boppam doo nga ko ñoroon mbaa njabootam mbaa famille bi mu bokk kon du jar fitna gi ñu ko doon jéem a teg ci géej gi ak tàqale gi ñu ko doon tàqale kum njabootam ak di ko jéem a sànq ci doo fi waxee laa ilaha illallah doo fi jàngalee alxuraan doo wax dara su fekkoon boppam dong moo ko ñor kon du def loolu waaye sóor ñi ñëw nag ak ñi bëgg ñëw ci ginnaaw looloo tax mu daj coono boobu yépp moo tax mu ni loxamti daah yi sama tagg wii ñeel na ko baada na jaah yi ginnaaw ba sama aajo fajoo ci moom comme defal na ma lu mu defalul kenn may na ma lu mayul kenn de euh, yóbbu na ma fu mu yóbbuwul kenn kon tagg wii moom it moom moo ko moom inda sabaahi ca suba ya waa fil masaayi ak ca ngoon ya salaatu sitta juróom benn weer yi dama koy julli ci moom bi mat xi sitta weer yi dama koy taggee yonent taatihi batta moom lay saxoo daayiman abadan gis nga weer wi maanaam at mi fukki weer la ak ñaar mu xaaj ko juróom benn weer yi ci salaatu ala nabi la koy def nga xool nag njëriñal salaatu ala nabi yàlla nee na képp ku julli ci yonent yàlla moom sallallahu alayhi génn julli dana digal malaaka yi ñu julli ci yow fukk ma julli ci yow fukk boo jullee fukk ci moom ma julli ci yow téeméer malaaka yi julli ci yow téeméer nga julli téeméer ma julli ci yow junni génn julli nga julli junni nag sa yaram araamal na safara moom mu ni moom salaatu sitta julli gi muy julli ci nabi sallallahu alayhi wasallam juróom benn weer yëpp da koy xaaj di ko julli ci nabi sallallahu alayhi wasallam bi mat sitta bu yooyu matee mu tan juróom benn weer yi da ci tagg yonent bi sallallahu ak borom subhaanahu wa taala nee na taati yi batta nee na loolu moom lay dappetoo ma atti ma ma atti saa yi ànd ak di roy yonent bi sallallahu alayhi yal na yàlla dolli xéewal ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buur bi nga xam ni moo màggal ñëpp faaqa kulla kookoo tiim ñëpp fil atqiyaa yi ca ña ragal yàlla alayhi sallam na yàlla dolli musal ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam walam kooku mbiram kawe wal ajru azzam julli ci moom yoolam kawe gis nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yoram kawe na filaas ki ca gaa yu yiwee ca gaa yu kawe kon julli ci yonent bi sallallahu xeetu jaamu yàlla la goo xam ni mën naa ni mooy bunt bi gën a gaaw a yéegalee nit ci yàlla ndax yàlla santaane na julli santaane na woor santaane na aj màkka génne asaka lii tax doonub jullit yëpp muy ponk yi tax boo ci tënkoo doonub jullit yeneen yi door a ñëw bu ci ne yàlla santaan na ko waaye gisal julli ci yonent bi sallallahu alayhi moom dafa wax ni inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi su ngeen yëgee ak su ngeen yëgul man maak samay malaayika ñoo ngi dëkkee julli ci kooku ñox muhammad sallallahu alayhi wasallam kon yaa ayyuhal lazina amanu yéen ñi nga xam ne yéen gëm sallu alayhi julleen ci moom mais nag dafa am condition wa sallimu tasliman da ngeen sëlmal ci moom ne kon julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yi fee nekk foofu la yi fi nekk moo tax sëñ Tuubaa nee na bi salaatu sitta bi mat xisitta taatihi batta maati saa yi alayhi yal na yàlla dolli xéewal ci moom yonent bi salaa sallam rabbun ajalla buur boobu nga xam ni moo ko màggal ba mu ba mu kawe tiim na ñëpp la qiyaay te ña ragal yàlla ñi nga xam ne dana ñoo xam cafkak yàlla cafkak julli ci nabi sallallahu alayhi wasallam ak cafkak bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ak cafkak bëgg alquran ñooñu ñooy ñu texe alayhi sallam yal na yàlla dolli musal ci moom walla am ru faqam kooku mbiram kawe na de wala ajru azam julli ci moom yoolam kawe na de filaskiyaa yi ca gaayu kawe radiyallahu taala anhu على العتيق باب تريق أقل وسوق كل رضا على الوزير سيف بشير رضا القدير مجري القضاء آل الدياء أقلها يائي خير ردائي من ذي البقاء yàlla na ko yàlla fayal Sëriñ Tuubaa nee na alal atiq yàlla na nekk ca yàlla na yàlla dolli xéewal ca aji gore ja Abubakar la ci jublu baabi tariqi kooku mooy yoonu lislaam mooy buntub lislaam bi Aboubacar bu wax lañu sëñ Tuubaa mbaax ku mu mbaax ak bëgg gu mu bëgg rasulullah sallallahu alayhi moo tax fu mu tàmbalee rek ci borom bi lay tàmbalee ginnaaw mu jaaree ci bunt bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wax li muy wax ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëmale ko ci borom bi subhaanahu wa taala buy daaneel nag daana ci boole saxaaba yi ndax mënoo bëgg baay bëgg yaay bañ doom te yonent bi julli yi gën a mat yëpp baax na julli yëpp baax na waaye julli gi ci boole aalihi wa sax bii nag mooy li am solo moo tax Sëriñ Tuubaa toujours fekkee muy daaneelu xasida foofu rek lay daal di lay daal di eh, daane la moo tax alal atiiqi yàlla na yàlla dolli xéewal ak ak jàmm alal atiiqi ca kay bunt ba di buntub lislaam Aboubacar yonent bi sallallahu alayhi wasallam at la ko magee moo jëkk tuub ci mag ñi gën cee sonn gën cee tabe daan jënd ay jaam di goreel di wër ci dëkk bi ñiy gëm te néew doole ñu leen di bund xutaal mu leen di xettali loolu liggéeyam la woon jël doomam ju gën a ndawee muy Aïcha yëkkati ko may ko yonent bi bokk gu dëgër ndax bu deret jaxasoo rek xas a jeex te may na ko doom ju wax Aïcha Aïcha moomu ci néegam la yonent bi sallallahu mujje socc bi mujj ci gémmiñu yonent bi sallallahu ci gémmiñu Aïcha la mujje Aïcha daa yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ne xusu nisfa diinakum an hasil xumayra jël leen seen genn wàll diina ci ndaw su xonq suñ tuuti sii Aïcha am na ay cër yu bare bare bare ci diina ji dëgg dëgg nag amul doom bokk na ci kéemtaan yi suñu borom itam Aïcha eh, jànq la xale la wax nañ ni bi ñu koy jox sang bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi toll ci juróom-ñaari at ñu dem moom neuf ans ñu door koy dugal néegam mu du nag moom vingt et un ans sang bi génn àdduna bàyyi ko fi mu toogaat soixante-trois ans door a génn àdduna ëmb bu yàqu sax mu cee jaar musul am doom kon ñun fi ñu teg amul doom dañu yaakaar ne gone ndaw ak jànq mooy maye doom waaye dafam am loo leneen la mu ngi ci euh, mbiri sunu borom subhaanahu wa ay am na beneen kéemtaan bu am ndax sunu yaay saarata saarata soxna maam ibrahima alayhi salaam dund naag moom lépp juróom-ñeent fukki at ba mu soobee sunu borom subhaanahu wa taala lañu la ko may doom doom jooju mooy tudd ishaq ishaq moom moo jur yanqooba yanqooba moo jur yuusufa yuusufa juróom eh, eh, juróom-ñaari eh, doomi baayam yëkka sànni woon ca ca teen ba am na ku ñu laaw yi laaw yi moo jur imran imran moo jur Moussa kon meer boobu ku barkeel la booy xool nag yonent yi ban Israël yëpp soxna soosu amoon presque téeméer yu manqué nangam ba xelam génn ci doom moom la ko yàlla jox mu ngoog kon yëf yi yéeme na kon mbir mi mbir yi suñu borom la subhaanahu wa taala demul fenn moo ko yor boppam moo tax sëñ Tuubaa nee na Euh, Aboubacar moomu axil wu suuqi am naa ak moom kóllëre gu dëgër ak bokk gu dëgër dëgër kullun ridaa yi làq na bépp ngërëm borom bi subhaanahu taala mu ne fa tegg wax ni ni alal bëgg a wax mu ne alal wasiir yi alal wasiir yi sayful bashiir مدن القضاء آل الضياء أقلياء خير رداء من ذي البقاء tey Mbàkke si la kay aw baax na daal ñëwal ñëwal ñëwal aw ci way yi moo gën li nga nekke Oustaz Sall moom d'accord na macha allah oustaz nag ne woon na ma boo booy naan ci ginaar yi booy naan nenu ginaaru Sénégal gi léegi sa baat bi neex waaye ginaar yi tugal yi moom boo koy naan moom <laughs> sa bi dégg xoddoos moo tax ginaar yooyu ginaar dam Danemark yi Cheikh ka woon nga may waaye maa ngi xool daal ci pulaay yi nekk ci boori sàngal kam docteur yónnee ma ay nen foofu ndax baat bi gën a neex ndax daaj yi may daaj daal te nar ko naa ngi poroxaan ji moom incha allah maa ngi seet fekkee sëñ Muntaxa Eh, dinañ ma daañ ko mën a wax ñu may ma ma animé ci Porokhane ji daal dina baax lool ndax daaj bi am na solo ñaanu naa ko sëñ Babacar Si Mamadou Mansour ci gàmmu gi waaye pandémie moo taxoon mujjul woon kii du ñàkkoon moom gàmm gi bu yàlla dogale yi fi jeex ba ñuy gàmmu Tiwaawan moom daañ ma jox ñaan Abdou Aziz Mbaye ñu may ma ma ma animé gàmm gàmm gi kon yi fi àngoog waaw maam ginnaaw wax nga Aboubacar yi ku fóotal mbët rotel bardi mu ni alal wasiir yi yàlla nekk ca jaraaf ja te mooy omar ibnul xataab mu kuy kooku maam mu ni sayful bashir yi kooku mooy jaasi ja daan bégal jullit yi omar fu mu musaan jaar seytaane du fa jaar alxaq maa omar yi omar ngay dëgg fu mu toll bi ko yonent bi di wax dëggoo ko taxoon wax dafa demoon ba am ñoo xamante ne dégguñu woon Omar ndax dafa woon nañ diir ko mbagg ak gam-gam loolu waaye nit bu ngeen bokkee mission di nga tolloog moom foo xam ne nii lépp lu muy wax sa xalaata nga ca sa yoon a nga ca ngir bëgg rek yi fi jaar yoon moo tax yonent bi salaam daan wax ni bu ma yàlla yónniwul woon yónni Omar moo tax mu ni kooku sayful bashir mooy jaas ci daan bégal jullit yi ridal qadiri ngërëmal ko sell ki yàlla nekk ci moom mooy sunu borom subhaanahu sunu borom ban maam mu ne madiril qadaay te mooy yàlla mi nga xamante mooy dawal atte ya ala diyaa yi yàlla nekk ci borom leer gi axil hayaa yi ah mbokk axil hayaa mooy mbokk mu bari ma kersa te mooy Ousmane alal diyaa yi yàlla nekk ci borom leer ga mooy boroom leer gi mooy Ousmane moom lañ tuddee noorëy ni boroom ñaari leer yi moom lañ tuddee noorëy ni borom ñaari leer yi waaw da koo may moom itam da koo may dafa dafa xam nga gis nga wax dama la dama wax feel dama tëb léegi Omar Omar moo yëkkati doomam ju ñuy wax Absa may yonent bi sallallahu alayhi ni Ababacar yëkkatee doomam Aïcha may yonent bi sallallahu waaye sang bi moom itam ku delloo njukkal la mu ni alal diyaa yi yàlla nekk ca boroom leer ga axil xayaa yi mbokk mu bari ma kersa te mooy Ousmane Ibn Affan moom itam yonent bi sallallahu dafa yëkkati doomam ku ñu wax Roqaya daal di koy jox keroog ba ñuy xare badar ba ñibbisi fekk ya dafa feebaroon ndax roqe itam bi muy gàddaay di jóge màkk di dem Medina dafa fekkoon mu ëmb ëmb bu ndaw bi muy dem ba ci yoon wi ay saay-saay da dab leen tiital giléem ga giléem ga daw roqee daanu ci xeer yi feebar boobu mu ko jàpp ba xare badar keroog bi jullit yi amee ndam bi ñuy egsi ci dëkk bi ci la roqee di roogi di dog génn àdduna yonent bi sam alayhi wasallam doomam bu ñu wax Umu Kalsum daal ko koy may Umu Kalsum génn àdduna mu ne ko bu ma dese woon keneen tam daal di la koy may wala ma ji jëf mu ngoog moom la borom bi subhaanahu wa di wax ni ngën ji ngërëm euh, waaw waaw axil xayaay borom borom kersa gu yaatu ga te Ousmane xayru rida yi ngën gi ngërëm yàlla nekk ci moom ngërëm lan min sil baqaa yi lu bàyyikoo ci borom des ga mooy borom bi subhanahu wa taala kon wax na la Ababacar wax na la Omar wax na la Ousmane mu ne alal qaribi alal qaribi laysi lxurubi rida almujibi martiqai mu ni alal qaribi ñëw fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu toog ni ko yaay woote ne yàlla la yónni mu ni ko naam ci lu wér mu ne ko dégg naa itam ngeen ni dégg naa ngéen ni yéen ñi ku ku dee ci yéen àjjana la jëm ku dee ci ñun safara la jëm mu ne ko waaw mu ne ko man laajuma la dara leen rek laa bëgg na kenn ci yéen ñëw léegi ma rey ko mu dem àjjana mbaa mu rey ma man ma dem safara ñépp ni dekk sang bi ne pat mu rëppdal fasam ñëw ba tiim sang bi fas yu yëkkati tànk yi bajantu yëkkati genn bi tuur ndox mu ne ko wax leen wax leen li ngeen di woote du dëgg de xam ngeen li ngeen woote bu doon dëgg la du ma ñëw ni safara metti tàng jiir ma bëgg faa dem ni àjjana neexi seetu guyu ngeen ragal faa dem xam ngeen li ngeen woote du dëgg de waaye na kenn jóg waay Aliou ni bërit ba mu toog daal di ñëw ci sang bi alayhi salaatu wasalaam ni ko sang bi kii li mu wax daf maa naqari dama ko bëgg a faj sang bi ni ko Aliou tin ma ci kii Omar bu mu ludd la tin ma ci mu delluwaat toogaat di di di foofu sa ndëkku mu wax ko ñetti yoon ni ko xam ngeen li ngeen woote dëgg waaye waaye nag kenn ci yow jóg ma yóbbu ko saf àjjana te mbaa mu yóbbu ma safara Aliou ñëw ci sang bi samp jaaseem ni ko dama koy faj mu ne ko déedéet mu ne ko déedéet góor la may góor sang bi xam ne pexe jeex na mu day leqar ci kaalaam googu takk ci ndiggal si na ali daan yàlla kii laa dese ci mbokk billaay bu daanoo lislaam fi lay yem bu daanoo fii lay yem la lislaam di yem dimbale ma ci Alioune jàkkaarlook moom ni ko dama bëgg nga wax ma yaay kan bala may xeex yow mu ni ko man maay Aliou ko tedd kee ngay séen suñu ñaari bàyyee bokk bàyyi dégg nga Fatimatu bint Rasul mooy doomam jigéen ji mu gën a bëgg mu ne ko mu ne ko kooku bu ma sonne ci xeeb ci ay lubam lay noppali ko Abu mooy sama baay mu ne ko doom ma xeex yow rus naa dem alaaxira fekk sa baay naan maa maa xeex wax leen ma keneen mu ne ko déedéet armal naa yaa noonu ko génn te man maa génn ali ko woo naa la ci ñetti mbir roofal sa jaas jii dem sukk ci kanam ko tedd li muy woote mooy tax mu bàyyi la mu ne ko ak ban mu ne ko mbaa nga dem waxtaan ak say bokk ñu bàyyi la nga dem ba déwén nga ñëw te nga joxe galak góor gi ni ko góor mu suma duma ba may joxe galak te kii nga naan naa tukk sukk ci kanam wedd kaa tax ma yafal sama fas wi wax ma leneen Aliou ne des jaasi ni ko woo naa la ci kii góor gi ni cëpp ni ko te nga te nga dem alaaxira sang baa ngay mu ngi rek ñuy leewaatoo jaas yi dal jaas yi takk jaas yi dal jaas yi takk téeréer teel teel teel sa nga ba naan nag yaa rabbi bu ñu liisee rek mu ne yaa rabbi laa tasari ni fardan yaa rabbi Abubakar jóg te loxoom ci mbaggam ni ko yàlla du tas sa yaakaar billahi yàlla du tas yàlla du yaakaar mukk dalal moom moom moom moom moom moom ba ali ni ko dara yenu ko ba biir weex ni ko suuf kekk jël damitu jaasim ren di góor gi toog ci dënn góor gi nag comme poussière bi te kenn xamewul kenn ñuy xaar poussière bi dal ñu xam ba xam ku rey ñu xaar ba pënd bi daal ñu seen góor gi toog ci dënn góor gi naan allahu akbar sang bi daal ni yenu leen ma ko indil ma ko ba fii moo tax mu ni fu gàcce musaan tiim lislaam booba àll yi moo fa nekkoon sëñ Tuubaa radiyallaahu taala daan ni ala saxaaba yàlla nekk ca saxaaba yi ijaaba ñay boroom wuy si te ba ñu wootee yàlla na jàmm yàlla nekk ci ñoom waaye mbokk yi ñu déglu waxtu bi dafa jeex tàkk kon ñu teg foofu suñu baaram incha allah ba ajjuma jëlee ñu ñëw ak yéen ci li des ci mooy bu naafiya oustaz Alioune Sall lay bàyyi léegi mu ñëw ak yéen ci toogu gi incha allah bu bareen jox sëñ Mbàkke Sylla mu ñëw yéen ci xamtu bu nee ba guddi imam Mor Seck incha allah alimul allaama dinaa ñëwaat ak moom ci al minbar Pape Laye Dieye leem fatigawul moo nekkoon ci technique bi seen mbokk oustaz Alioune mbay moo nekkoon ci waxtaan wi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala